te yi am nañu wax ne mën naa wax itam xaddasa ni ñooy wa in ajaasa hoo ndem defal na ko li jaasa bilaa xiraati ci ak jàng ajaasa nii kon ajaasa nii axbara nii ak axbara nii ijaasatin ak daganal la wala bokk ajaasa nii ajaasa nii axbara nii ak axbara nii ijaasatan ci li jaasa li ci nekk baax na daa wax ne bu fekkee ne du moom sëriñ bi nga xam ne moo xam addis moo doon jàng ngay dégg yow mu bëgg a nettali bu itam yow sa bopp yaa doon jàng moom muy dégg kenn kenn amu ci dalaa doyloo rek defal la li jaasa kon la ne la mën ngaa nettali mu ne kon boo fa jógee mën nga ne ajaasa nii mën nga ne axbara nii ijaasa la ñu la sara bi wax na wa in ajaasa acheikhu arrawiya من خير قراءتي من الشيخ عليه ولا منه على شيخي فيقول الراوي حدثني أو أجازني أو أخبرني إجازة وفهم منه جواز الرواية بالإجازة وهو الصحيح وفائدة الإجازة بقاء سلسلة والإجازة من جواز الماء التي يسقاه الحرث والماشية تقول استجزت فلانا بمسموعاته ajastuhoo ajastuhoo nag ibnu faris ibnu faris xat naqa laxoo taxal na ko wa inamal maxroofu naka la ñu xam nag mooy xat ajastu laxoo xat ajastu li jaasal naa laxoo ñal ko dafa wax ne ñoom li ñu xam mooy ajaasa boobu kañ defal li jaasa ba dañ koy jarab laam wax ne xat ajastu li fulaanin ne xat ajastu laxoo ji wax waaye jekki-jekki ne ajastuhoo mu song xoo jëre noonu te arafu jar yu jaru ko jaasa jagatiwul arafu jar ibnu faris moom nangoon na ko waaye li ñu xam daal ñoom mooy xat ajastu andi andi arafu jara yi laam boole ca ca kañ defal li jaasa ba waaye bu jëkk jëkki ajaasa songu ko noonu nag te andiwul arafu jara yi ibnu faris moom nee na mën naa nekk baabul qiyaas yi lii moo di buntu qiyaas dañoo waxoon ni masaadiru tashriix bu dee ci lislaam ñeent la yoo xam ne alquran ak as sunna ak al ijma ak qiyaas nag léegi mooy bëgg a des moo leen ñeenteel ko defee njëkk a xamle lan mooy qiyaas ak xamle dara la nga caa bëgg dana ciy dimbali lool al qiyaasu istilaahi l usuliyiina huwa ilxaaqu waaqiatin لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم maanaam qiyaas bu ko waa usul waxee mooy xew-xew boo xam ne gis nañu ci ab yax bu wër duñ ci àtte waaye amal na xew-xew bu demee ne moom boo xam ne yoon àtte woon na ci yax bu wër ndegam nag moom mii mi ngi demee ne booba te yoon waxam na ca lee àtte bu wër moom mii demee ne moom itam ñu far ca wax loola yemale ko moom waaw loolu mooy xiyaas xiyaas kon mooy natt mooy mbir moo xam ne yoon àdduwu ca waxu ca dara waaye am na lum yemalam loo xam ne yoon àddu woon na ca ba waxam ca àtte parce kon moom mi nañu far ko yemale loolee ngir sabab su su dox seen diggante loolu mooy xiyaas bu fekkoon ne ci luxa la nag alqiyaasu maanaahu fi luxati al arabiya at taqdiru li shay lima lima yumaasiluhu yuqaalu qaasa althawba bil mitri ay qaddara ajzaahu bi wa yutlaqu alqiyaasu ala taswiyati li anna taqdira shay bima yumaasiluhu taswiyatun baynahuma wa minhu fulaanun laa yuqaasu bi fulaanin ay laa yusawaa bi kon booy xamle xiyaas da ngay wax ni mooy daal xew-xew boo xam ne moom yoon àdduwu ci benn yax boo mën a jàng boo mën a làmb daj waaye nag am na bu mu yemalan boo xam ne yoon àddu woon na ca ñu far jël bii nga xam ne yoon àdduwu ci yemale koog boobu yoon àddu woon yemal leen atte ngir gis lu leen boole ñoom ñaar ngir gis lu tax ñu war leen a yemale téere bi sax nee na wa haadihi amsilatun min al aqyisati sharxiyati wal wadxiyati tuwaddihu haada taarif dina ay misaal yi ñi sax yoo xam ne mën naa leeral xam le ko mel ne awalan mën nga ne shurbul xamri waaqihatun sabata bin nafsi xukmuha wa huwa at tahrimu alladi dalla alayhi qawluhu subhanahu wa taala إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لحلة هي الإسكار فكل نبيذ توجد فيه هذه الحلة يسوى بالخمر في حكمه ويحرم شربه لأن نان سانغر خلق ولا بو خمني ab àtteem dafa sax ci yaxwal quran te mooy li suñ borom waxtan jàng ko léegi ci laay bi nee na sabab sa tax ñu àtte ci araamal mooy màndal gi kon nag am xonj nabiisu nga xam ne xonj la moom itam gis nañ sabab sa taxam ñu araamal sàngara te mooy màndal am ja loolu moo tax kon lépp luy màndal la ne ñu jox ko àtte alxamru sabab nee na ñaareel mën nga ko misaale am na xew-xew boo xam ne gis nañ ci yax bu wër mooy ku rey koo xam ne fekk na nga war koo doon boo ko doon ngir rey giñ ko rey te loolu ak yax la bu warante bi ne woon laa yarisu alqaatilu te sabab sa mooy ku rey koo war a doon day mel ni kon nga yàkkamti nga yàkkamti woon rey ko ba doon ko maanaam bi yoonam bi yoonam ci bi ne ku rey ku war a doon bu ko doonati ndax daa mel ni daa yàkkamti woon doon ko ba tax mu daal di gaawantu rey ko ne loolu kon ab xew xew ngoog boo xam ab yax nga àtte nañ ci ab àtte boo xam ni te mooy ñàkk doon gi ak yax la bu wér léegi ne neenam ñu xiyaas ci bu nit ne woon su ma deexee nañ ma joxal diw ci sama alal nàngam al muusa lahu mooy kañ dénkaan nañ ko jox nàngam ci alal al muusi sumu faaxe ni mooy ki wax ne su ma deexee nañ ma joxal diw nag léegi nag nee na kookee nag bu yàq bu rayoon waa ji nag kookee ñu waxam ne nañ ko jox nàngam bu wëlbati koo rey ki wax ne bu ma deexee nañ ma nañ ma ko joxal tey ne kon moom it daa yàkkamti moom it alal yooyu ba tax mbool ba ci bu ko waaw kon ñu far ko kooku ñu gisuñu ci yàq waaye ñu far ko yemaleeg li yonent bi ne laa yarisu alqaatilu ndax sawab ci seen la mooy ku ci nekk dangaa rey rek ngi yàkkamti jot alal saalisan albayhu waqtan nidaay li salaati mi yowmi aljumuati waaqihatun sabata bi nafsi xukmuha wa huwa alkaraahatu allati dalla alayha qawluhu subhanahu يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لعلة هي شغله عن الصلاة والإجارة أو الرهن أو أية معاملة وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة توجد فيه هذه الحلة وهي شغلها عن الصلاة فتقاس بالبيع في حكمه وتكره وقت النداء للصلاة أنا وقت نبدو تجول الجمعة jekk di ci jaay xew-xew la boo xam ne xewoon na te àtte woon ab àtte ñëwoon na ñu waxe moom fii nag mooy sib waaye bu dee ci fiq maali moom daa mel araam lañ ci wax ñoom ci waxtu yi nodd du ñaar ba kere ñu sulmal waaye ñu waxee ñoom borom téere bi mooy sib waaye buñ jàngalee ñu moo wane àtte bi mooy yax bi mu ne gis nañu ne kon ndegam li tax ñu wax ci loolu mooy jekk koy jaay day gàllankoor kooku ba du mën a julli bi rek ñu ne kon jekk fii defante ijaaratu mooy defal moom fay la wala jekk fii taylente mbaa xeeti jëfante yooyu gisuñu ci ab yax waaye mënees na koo xiyaas ci loolu ndax ñoo bokk lu ñuy def la tax ñu siblee te mooy gàllankoor bi ba doo dem ci jullikaay ba doo dem ci jullikaay ci moom yii itam noonu la koy defee te bu dee ci ñoom ñu wax sib waaye bu dee fekk maale moom ndax mu ne araamal lañ jàngal kon xam leen nañu ci téere boobu xiyaas ba joxe ci itam ay misaal téere bi ñu nekk dëgg dëgg nag moom mooy wax naa wa rabbuka sa delloo alfaraxa bànqaas ba illaa aslim jëm ci cosaan yoo xaddu loolu def na ko lim li xillatin ngir sabab tajamahu sos na leen boole xiyaasun mooy xiyaas xaddu warada boo xam ne rot na fi mu toll boo jàngoo yi li xillatin taji maxari ngay wax tey mel na ne amul lu ko jatam xanaa buñ tuddee al aslu mooy xew-xew ba nga xam ne yoon àdduna ca boo àtte woo noppi mu ne al farxu mooy li nga xam ne yoon waxu ci dara waaw mu ne nag li nga xam léegi rek mooy xiyaas su fekkee ne mbir mi yoon àdduna ca waxu àtteem gannaaw ba leneen lu demee ne moom am te yoon waxu ci dara ñu far jël lii nga xam yoon waxu ci dara yemale koog loolee benn àtte na loolu kon mooy xiyaas ngir gis ne lay tax ñu yemal leen mooy dañuy gis lexin lati sabab soo xam ne moo leen boole kii itam saraana ko ne wa amal qiyaasu fa huwa arrabihu min al adillati alcharxiya wa huwa fi lluxati bi maxna taqdiri nahu qistu alsawba wa bi maxna tashbihi nahu qawlihim yuqaasu almaru bilmari wa ama fi listilaahi fa huwa raddu lfarxi ila al asli lixillatin tajmahuhuma fi lxukmi ومعنى رد الفرح الأصل جعله راجحا إليه ومساويا له في الحكم كقياس الأرز من ليتم كقياس الأرز على البر في الربا من حلة الجامعة وهي الاقتياد والادخار للقوت عند المالكية وكونه مطعوما للشافعية أنا ميمل خينا تياب بخجب أتين waaye dañ ko yemale buru dale ci ne riba la ngir sabab si nga xam ne ñoo ko bokkale mooy riba xam nañ ne bu dee fiq maal li tax ñu ne riba li tax ñu ne pepp mburu mi ngi bokk ci riba bi yaat yi nga xam nanguwul ëppale mbaa yeexe yaar la mooy luñ mën a denc la di ko dundee luñ mën a denc la di ko dundee te yaar nag dañoo gis ne am na ci ceeb moom itam nga xam ne kon ceeb dañu ko yemale bor ci ne bokk na ci nga xam nanguwul ëppalante wala yeexe bu dee jaay ci jënd ngir xiyaas loolu mooy xiyaas iraa def na ko gis nag moom xiyaas mun xasima muy aji séddaligoo ilaa salaasatin jëm ci ñett li xillatin jëm ci xilla wali dilaalati ak jëm ci dilaala ak shabahi ak shaba nee na ak xiyaas dañ koy def ñetti xaaj am na xiyaas la xilla am na qiyaasu dalaala am na qiyaasu shabah dali te wax ñett ñooñu ne maa loo xam ne kaanat nekk na alxillatu xilla ja moo jibatan di aji saxal lil xukmi yi ñel àtte ba fii ci moom kul waxal ne qiyaasu xillati mooy qiyaasu xilla waxi te nga wattu ko dafa wax ne qiyaasul xilla mooy loo xam ne nii xilla ji nga xam ne moo leen boole dafa dëgëru dëgër dëgër ba nga xam daal xel nanguwut wax ci leen lu bokk teg loola ndax rek dëgër buñ dëgër saraa bi sax nee na yaxni an qiyaasa yanqasimu ila salaasati aqsaamin qiyaasu xillatin wa qiyaasu dalaalatin wa qiyaasu shabahin fa qiyaasul xillati maa kaanatin xillatu fiihi moojibatan lil xukmi ay muqtadiyatan lahu bi maxna annahu laa yafsunu xaqlan تخلف الحكم عنها آه. ولو تخلف الحكم عنها لم يلزم منه محال كما هو شأن الحلال الشرعية من خياس الحلال دال موي بو سيت لو سو سي لن دولي موم دغر نا سي دغر نا دغراي بو خامي موم nga yemal len dong mom la xel xawa mëna nangu da sax mom deug la sax def na bañ yamale waye dal bu ko xel defut mom dana doy war ci mom lool da sax bu ci walu yoon mom وليس المراد الإيجاب العقلية بمعنى أنه يستحيل عقلا تخلف الحكم عنها وذلك كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيه بجانب الإيذاء فإنه لا يحسن في العقل إباحة الضرب مع تحريم التأكيد لأن لول لنكوي مثال مولي بسم برمنا fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma bi suñ borom aaye suñ waajur nga wax leen mbarsa baat leen gëdd kon nee na loolu mën nañ cee xiyaas ni kon dóor leen waxaale wuñ ko maanaam naka la ñuy bañ a xaraamale gannaaw bu suñ borom aaye wax gi mbarsa mbaa gëdd gi kon bu loolu araamee kon dóor leen tam araam dong la mën a def li xel dëgg rafet yi daal nga xam daanaka moom dong la mën a nangu mooy dóor leen moom waxaale ko mooy araam la mën a def ndax ndegam mbarsaa ji wala gëdd gi rek araam la kon dóor gi itam waxu ko waaye ci la dong lañ ko mën a ak araam dong lañ moom la ci xel xaw a mën a wax mooy fa innahu laa yaxsunu fil xaqli ibaaxatu barbi maxa taxarimu taasir waaw daanaka xel xawuta nangu ne gannaaw bañ araamalee gëdd ji mbaa yooyu dóor gi moom araamut dagal na léegi loolu mënta nekk daanaka xawuta mën a nekk daanaka loolu mooy xiyaasul illa wa in tekun ndem dana nekk nag moom xilla ji dal la di tekkale xale yi ci àtte wa duuna am tey jubahoo ci liggéey mu koy waral nag fa fut dalaale ti kon mooy sabahu dalaala xale na mbir moom feeñ na nee na su fekkee nag léegi xilla ji maanaam liy sabab àtte bi dëgër na ci seen diggante ñoom ñaar bu baax a baax waaye taxul nag ba àgg ci xiyaasul xilla bi nga weesu léegi dëgëréwul dëgëréwul ne booba nag xel daal xel daal laaj na loolu yemale leen ndax gis na mu xilla ji dëgëre ci ñoom ñaar ñëpp ba boole leen waaye nag taxul mu àgg ci dëgëre ni bi nga weesu kooku mooy xiyaasu dalaal moo tax saraa bi naa wa xiyaasu dalaalati huwa al istidlaalu bi ahadi nadirayni alal axar wa huwa an takuuna al xillatu daallatan alal xukmi wala takuunu muujibatan lil xukmi ay muqtadiyatan lahu kama fil qismi awal wa hada nahu huwa xaalibu anwaahi aqisa moom na moo gën a bari ci xeeti xiyaas yi wa huwa ma yakunu alxukmu fiihi li xillatin mustambatatin yajuusu an yatarattaba alayha alxukmu fi lfarhi wa yajuusu an yataxallafa wa dalika ka qiyaasi maali sabiyi ala maali lbaalixi fi wujuubi zakat fi wujuubi zakat fiihi بجامه أنه مال نام ويجوز أن يقال لا يجب في المال السبيل كما قال أبو حنيفة نعم لولو قياس الدلالة من يكون مثال li ñu wax ne alal li gone asaka war na ca nim waree ci alal li mag te gis nañ ne la tax ñu wax ko ca la leen boole ñoom ñaar mooy gis nañ ne leen lu ci nekk alal la joo xam ne mi ngi yokk bi jaam yi annahu maalun naamin alal la ji yokku ni alal yi mag di yokkoo noonu la alal yi gone gi yokkoo buñ ko dee toppatoo kon ni asaka waree ci alal yi mag noonu la waree ci alal yi gone loolu gis nañ ne nuroo gi maanaam li leen boole dëgër na lool ba xel li xel jàpp mu yem yemale leen waaye nee na muy leen yemale wut tam du tax mu bettee ba ci Abu Hanifa sax moom daa jàpp ne waaw nit nga xamee ne gone xeeti julli yooyu waru ko ba tey asaka itam waru ko waaye nag ku dégg li Abu Hanifa wax ci alali gone bañ ko yemaleeg alali mag ah mën naa mu xaw laa bett tuuti rek waaye taxul mu dëgër dëgër ba mel ne lee nga waxan léegi ci waajur yi ci wax leen wax bi day waar ak lu aju ci boor ga du tax moom ñu yemoo ñoom ñaar wa isaa taraddada leen deng deng na faraxun bàngaas bay na aslay ni diggante yaari cosaan fa zaaka kon loolee shabahun mooy xiyaasu shabah ñu wujj dañ leen fekkeef ne ko nee na xiyaasu shabah moom mooy day doon li nga xam ne yoon adduwu ca benn yax yaar da koy sëq yoo xam ne loo ca xool mu nuru ko lool ba nga dikk ko ci bëgg a classé xam nga xaw a deng deng ba xam ci lee laa ko war a classé wala ci lii laa ko war a classé ndax lu ca nekk da ko nuru lool laakin na waaye moom nag yul xaqu def na ko yéegal biir la fii ci la nga xam ne kasura ëpp na ak nuróonte mu ne waaye kon dañuy seet la nga xam ne moom la moom la seen anam nuróonte gën a bari rek ñu far ko yéegal ci loola ñu dañ ko misaal léegi moom lay wax naa wa qiyaasu shabahi huwa al farahu al mutaraddidu bayna aslayni fa yul xaqu bi aktarihima shabahan kal habdi al maqtuuli fa innahu mutaraddidun fi damaani bayna al insaani al xurr من حيث أنه آدمي وبين البهيمة من حيث أنه مال وهو بالمال أكثر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته كن فيلحق به وتضمن قيمته وإن سادت على دية الحر لأن كل مثال في أبجام من كريون أبجام من كريون بوسير لو تيجي day xaw nuranteeg ñu àtte ci moom li ñu war a àtte ci bu ñu rayee nit koo xam ne gor la ndax xam nga ne doomu aadama la lu metti metti waaye itam demel ne kon ci wet bahima dong la mel ni alal waaye buñ ko seetloo nag ci alal la gën la gën a niru lool ay atte la gën a niru ay mbir ndax xam nga ne jaam dees na ko jaay dees na ko doon ni ñu doon alal dees na ko waqafle dañu ko burle te itam koo xam ne gaañ nga ko dañuy seet lay xaymay la nga ca gaañ nga fay ko kon mel neen daal alal la gën a niru ci anam yu bare bare moo tax kon dañ koy dañ koy yëgal ci alal boolu leen àtte nga xam ne tey ku rey ab jaam itam xayma ji ngay fay donte xaymaam ëpp na li ñuy diyaale gorit bi te nga fay loola kon loolu la ñu wooye xiyaasu shaba moom moo tax mu ne kal xab di mel ni ab jaam in kuppi la ndeem rayof na ko yu xarru def na ko saxal filmaali ci àttib alal dañ koy koy àtte àttib alal te dañ koy àtte àttib doomu aadama bi nekk gor mu daal ñëw nag ci àtte yi boo shartu farxi sartu bangaas an yakkoon mooy mu nekk naasaba di askanoonteeg aslan cosaan farxu mooy li nga xam ne yoon waxu ci benn atte te nga di ko yemaleeg lee mu wax atte waaw kooku nee na lañ ciy sart moom mooy rek sawa sa nga xam ne moo leen di boole ñoom ñaar moo moo cosaan ni ngi koy bëgg boole atte maanaam moo leen koy bëgg wekk yemale leen maanaam la leen di boole na nekk yemoo képp bool bu dëgër dëgër bool leen bu dëgër dëgër ba yemoo képp a tax mu ne wa min shartil farhi an yakuna munasiban lil asli fil amri allazi yaji fil amri allazi yujmahu bihi baynahuma lil hukmi imma an takuna xillatul farhi mumasilatan li xillatil asli fi ayniha ka qiyaasi nabisi ala alxamri li xillatil iskaari أو في جنسها كقياس وجوب القصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجانب الجناية نانا سبب سبب حادثة ci ñoom ñaar ñëpp na doon leen mbaam bokk wenn xeet mën nañoo yemoo doon leen mel ni xiyaas bi ñu xiyaas njambaan am xooñ yi ci sàngara jëmbi la leen boole moom jëmbi ju leen la muy xillatul iskaar sababu mànd la wala ñu bokk aw xeet mel ni léegi xiyaas bi ñu xiyaas ni ku dagg loxoom nit mbaa tànkam mbaa yooyu dañ koy dañuy def noonu yamale ko ku rek ku rewoon bakkanam buñ buñ doonul leen leen itam ñoo bokk aw xeet mooy di jaawi il jinaaya kenn ku ci nekk jinaaya nga kon daal mën nga ne rek àtt bi nga xam ne yoon àddu ci daal lay tax ñu mën koo yëgal ci bee yoon àddu saw si leen di boole day dëgër lool ba doon leen mbaa mu xaw a doon leen waxaasa te li la cosaan rasaba sax na di dalili ci tegtal bu dëgër maanaam àtte ba nga xam ne yoon àdduna ko ñu koy woy ay aslu xam ne ci la yoon wax lam ci wax mu dul àtte day aajowoo àtte booba sax ci tegtal bu wér a wér waaw te nekk àtte bu sax bu wér a wér moo tax mu ne wa min sharti asli an yakoona hukmuhu saabitan bi dalilin muttafaqin alayhi bayna alxasmayni وذلك بأن يتفقا في حلة حكمه ليكون القياس حجة على القسم فإن كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما ولكن لحلتين مختلفتين لم يصح القياس فإن لم يكن قسم فالشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقوى به القياس ak lu mën di am daal moom la nga xam ne ca la yoon àddu dañ wax ca àtte ba na àtte bi dëgër nga xam ne kenn du ko nattable na sax bu wér a wér wér wax waxin la tun te xilla it nag daamat sax na bi ma alwalatiha ànd ak la mu xilaal ànd ak la mu sabab lam tam takibu bu firiku la sañ ci baat wala max nan du caageenu ci max naa biha ca loolee mu sabab biha ak loolee mu sabab maanaam maanaam xel la ñu fàttali ne la mooy sabab si nga xam ne moo tax nga jël mbir mi yan ko ci mbir ma yemale leen mu ne moom nag sart biñ ci sart yomb naa xam maanaam moom moom itam daa war a nekk loo xam ne mook àtte bi dañuy takkoo nga xam ne léegi jaaduwut moom xel la ji mu am ba noppi te àtte bi du am wala moom xilla ji mu yëkkatiku ba noppi te atte ba yëkkatikuwut waaw nga xam ne kon bu firi ko ci genn wet waxillatun daamat bi ma loolaatiha mooy mooy bi xay su bi xay su kullama wujudatil xillatu wujudal xukmu rek saa yoo xam ne sawa si am na atte bi am lam tantaqid lafsan wala mahnan biha mooy bi an wujida al mahna al muhallalu biha fi suratin wala yuju wala yujudu al xukmu fa matan taqadatil xillatu lafsan aw mahnan fasada al qiyaas waaw maanaam saa yoo xam ne léegi sawa si mën naa am te atte ba moom du am ci boo toppee nañ waxee baa nga xam ne léegi sabab si mën naa yëkkati bu tëdd cee àtte ba moom sax fa ba tey waaw lu mel noonu kon diir si ci mën xiyaas joxe nañ ci misaal nag misaalul awali ay yuqaala fil qatli bi musaqalin innahu qatlu xamdin wa xudwaanin fa yajibu bihi lqisaasu kal qatli bil xadiidi nee na mi ngi mel ne boo nee rayee lu diis rayu tey la ak akuk tooñ day waral fayantoo mel ne kalxat bi bin xadiid mel ne rey weñ bu ñuul soo ko waxe soo ko waxee léeg-léeg sabab si sax te atte bi moom du am fa yantaqidu dalika bi qatlil walidi waladahu fa innahu laa yujibu al qisaasa maxa annahu qatlu xamdin wa xudwaani nee na seetlu ne dañoo waxoon ne bu fekkee ni waajur rey na doom ja itam dañuy taral dëye ji rek waaye du tax ñu rey ko mu waajur wax te bu ko rewoon weñ gu ñuul kon loolu alxatlu bi mu saqalin la nga xam ne kon léegi dafa mel ne xilla ji am na waaye atte bi moom taxul mu sax ku ñaareel ki kooku mooy firiku lafsan ci maxnaam itam mooy lu mel ne wa misaalu saani an yuqaala tajibu zakaatu fil mawaashi li dafi xaajatil faqiri fa yuqaalu yantaqidu dalika bi wujudi dalika al maxna wa huwa dafu xaajatil faqiri dañu ne li tax ñu waral ñi asaka ci juri kër yi mooy bëgg faj soxla ku néew doole ci ñu mel ne kon léegi ku néew doole ci buñ fajee soxlaam rek borom jur gi mën a bañ a génne asaka ndax xam faj soxla faqiir bi ne du tee moom borom jur gi moom faaw mu war a génne asaka nga xam ne kon day mel ne léegi li ne woon mooy sabab si yëkkati ko ne te taxul àtte ba yëkkati ko waaw lu mel noonu nag kenn du ci xiyaas la ñuy xiyaas moom faaw day aajowoo xilla ga doon loo xam ne saa yu amee rek àtte bi am saa yu teggi ko àtte ba teggi ko wa shartu hukmin shartu atte nag an yakkoon mooy mu nekk maasala di yemoonteeg xillatan xilla fi naf yi ca saxal fi naf yi ca dàq ga wala isbaati ak saxal ga talaa topp na li gën a neex nag mooy nga ne wa shartu hukmin shartu atte talaa bopp topp na ko léegi jumle talaa nekk naa ci hukmin xëy na moo tane dafa wax ne atte bi nga xam ne moom la yoon addu ca lee di cosaan la ba ngay bëgg a jël farfu bi di ko ciy yéegal waaw nee na moom la nga cee sart moom itam yomb naa xam mooy mook xilla ji waral atte bi dañuy ànd fawo bu lee dàqoo lee dàqu bu lee sax ya lee sax atte boobee daal lañ cay sart rek moom mooy na ànd ak sawab si waral atte bi na atte bi ànd ak sawab sa ko waral nga xam ne saa yu kee saxee kee sax bu kee dàqoo kee dàqu moo tax mu ne wa min shartil hukmi an yakoona mislal xillati taabihan laha fi nafi wal isbaati ay fi lwujudi wal xadami fa in wujidatil xillatu wujidal hukmu wa in tafat in tafa kooku daa mel daanaka xaw naa muroon teeg biin weesu léegi way wenn weesu léegi wa hada ida kaana al hukmu muhallalan bi illatin wahidatin ka tahrimi al xamri fa innahu bil iskaari fa mata wujida al iskaaru wujida al xukmu wa mata ntafa intafa neen loolu mi ngi mel ne atte biñ atte atte biñ wax ne moom lañ atte ci sàngara te mooy araamal lañ ne mooy xilla ja mooy màndal nga xam ne saa yu màndal ji amee rek atte bi am saa yu màndal ji ñàkkee am rek mel ne bu sàngara samun bóori ya bay bineegar rek araam nga daal de loolu nag mooy bu fekkee ne maanaam la sabab àtte ba benn xila la wa ama isa kaana al hukmu muhallalan bi xilalin fa innahu laa yalsamu min intifaayi baxdi tilka al xilali intifaawul hukmi kal qatli fa innahu yajibu bi sababi riddati wa zina baxda al ihsaani wa qatli nafsi al maasumati al mumaasila wa tarki salaati wa xeyri dalika xanaa bu dee àtte boo xam ne ay sababi sababi sabab waaw dana ko di waral waaw mu ne kon yenn sabab ya dàqu rek lu tax atte ba dàqu waaw mel ne alxukmu bil xatli xam nga ne léegi la koy waral murtad dana ko waral njaaloo gannaaw sañiw dana ko waral rey bakkan boo xam ne wareesu koo rey te nooloon tekki ko rey mbaa bàyyi ji lépp dana ko waral kon nag lenn ci rek mën naa am daal di indi rey gi tey ci des du am ñàkk a ci des na moom de tutee atti bi sax yeneen yi ñu wax ne ñooy sabab alxatulu lenn mën na ci am tey tey ci des du am waaw waaye lenn li am rek mën na daal di waral rey gi waxillatun xilla xiya moom allati mooy la nga xam ne xat jala ba ñor dina lil hukmi ñel atte bi xam nga ne xat jala bat moo jugoon ci